jërëjëf mbokk yi seetaan déglu mbégte dellusiwaat ak yéen indiwaat gaam Biositidane muy gaam bu baax lool ci feebaru der der wi mën naa am loo lekk loo naan loo laal wala loo diwo bugg ko mu am rejet muy feeñ ci sa njeexitalu der ngay okk muy neex ngay okk muy neex muy continuer ba commencé soppeeku am beneen melokaan di génn ay ndox rax ci dolli bu yàggee tuuti dafay sax bu saxee day tas ci yaram bi mooy tax muy dem ba ci yàgg wewi si boppam di lekku lekk du ñuul ndax commencé na tas jàpp bët yi bët yi jàpp karaw gi jàpp deret bi commencé la indil beneen melokaan loolee moo tax seen cabinet bio rahma indi gamme bio cité derme muy gamme boo xam ni ñeenti produit moo ko am nga am boo xam ne da nga koy infusé di ko naan une semaine nga noppalu une semaine reprendre une semaine muy gamme boo xam ni tisane boo xam ni antifongique la du leen benn jafe-jafe tout nga am saabu boo xam ni moom ngay sangoo ñoddanti der wi waaye mu amit huile boo xam ni la nuit moom ngay diwoo ak li nga xam ne moo di savon ak crème kon ak ma gam bi tegu ci 10 000 francs nga mën ko am ci yenn diwaan yi nga xam ne moom la ñu am